ndax ñun ñooy Mali Mali mooy ñun. ñu ngi leen woo ñu xoolaat décision yi nga xam ne jël nañ ko teg ko ci ndoddu askanu waa Mali ndax dafa mel ne loi yi ñu jël teg ko ci Mali teguñu ko ci benn parti kenn sanctionné wuñ benn parti kese wala benn waaso wala benn waaye dafa mel ne Mali gépp lañ sanctionné ndax dañoo gis ne problème Mali crise bi dafa mel ne askan wi ñoom ñëpp ñoo jugandoo ne lii lañ bëgg lee lañ bëgg kon nag bu fekkee dañoo teg embargo yi wala ñu teg xeet yu mel noonu dafa mel ne teguñu ko benn parti waaye ci mboolem askan mën lañ ko teg te loolu dañuy gis ne dëppwut ak xekma li ñuy wax na sagesse dëppwut ak tamit xel mu rafet li am solo mooy ñu toog waxtaana wat ko waa CEDEAO rawatina waa Sénégal nag ñu ngi woo état du Sénégal mu jéem a xoolaat frontières yi nga xam tëj na ko ci wàllu moo xam aérien la wala maritime la wala suuf si jaw euh, maanaam jéeri ji la ñu fexe peuple Mali bi nga xam ñu ne ñoom ñu bokk aada bokk cosaan bokk lépp lu mën doon bokk ay sant sax nañ leen ma gën a mën a yombale la ba euh, mbir mi ñu teg seen kaw doo am ak jeexital ñoom